nga nar a revivraat euh, revivraat les mêmes images yi nga xam te ne nii tey dëkk bi yëpp daanaka fu ne ñi ngi doon woote na dal na dal na dal véritablement waroon na jàpp naa ne waroon na nekk lu mën a ñàkk kam voilà di fàttali ni kon euh, audience yi tàmbali ah, mais xamuñu exactement ban euh, moment la ñuy jël dossier bu président Bougane Gueye Dany ay dossier yu ñu inscrire la presse bi amagul accès si saa bi mais n'empêche dinañ def suñuy pexe ba mën a xam ndax ñu ngi ci dossier bu Bougane am déet Thierno Diop dispositif yi nga xam ne gis nañ ko daf ñuy fàttali loo xam ne ne amoon na benn at ñaari at ci ak ginnaaw muy loo xam ne sénégal yi dundoon nañu ko mais parewu ñu woon pour dundaat ko ndax yaakaaroon nañu peut-être ak nguur gi bu ñëwee ñoom euh, mën nañ dund lépp sëf situation bi nga xam ne moom la ñu nekk nii. Euh, surtout toujours rek ñi ñëwaat ci li andi loolu parce que man dama bokk suñu gëm ne li fi xew ati mujj yi révisionnisme la parce que loolu moo jaroon génn ay alkaati loolu. dafa jaroon génn bi waaw ah li fi xewoon dem. ci affaire information koy loolu jar na génn ay alkaati parce que citoyen bu ñu woo. toujours ma répété ko du ma taayee di ko répété. nga gis lu waaye képp ku ñu mës a woo ci histoire politique dafa. waaw ñu jël Thierno Bocoum ah, ah Thierno après ñu ñëwaat ci yow. Thierno euh, Bocoum moom la ñuy euh, waaj a déglu nii moom nag wax fa dëkk depuis le bi euh, ma nga fa mu àndoon ak Bougane Gueye Dany moom ak Anta Babacar Ngom tey jii tamit mu ngi fa waat. fekkee tàmbali naa wax rek ñu euh, jël ko euh, moom euh, Thierno Bocouma foofee sa Tambacounda tribunal bi dafa mel ni ñoom sax amuñu accès ci li nga xam ne moom mooy salle d'audience bi wala peut-être ñoom ñoo dañuy soog a ñëw lu mu ci manti doon dinañ ci gindeeku ci kanam tuuti moom Thierno Bocoum mu ngi jàkkaarloo taskatu xibaar pour ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy teewlu ci 89 point 7 tey Thierno Bocoum casquette la def ah, def si benn chemise bu weex ku sol lu weex nag pour xeex ñëw pour defante en tout cas moom mooy waaj wax ni sax euh, bu fekkee jàppandi na rek moom ma euh, Thierno Bocoum wax El Hadj Abdoul Aziz Sow Dabakh ak taskatu xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bari nañu lool nag ñoom taskatu xibaar yi euh, ku si nekk ak organe ba nga nekk wala site ba nga nekk ngir mën a teewee li nga xam ne moom mooy projet bi ak ñu teewlu Thierno Bocoum aux côtés de notre euh, frère et ami, membre de la coalition Samu Sakadou, euh, pour, pour son procès, assister à son procès. Nous avons tout suivi, nous étions avec lui à Bakel. Nous aurions pu être, nous retrouver là avec lui. Ce que nous regrettons, c'est qu'il s'est agi aujourd'hui euh, de retenir quelqu'un qui devait être avec sa famille, qui devait mener ses activités professionnelles, et surtout dans cette période qui devait euh, tout simplement faire campagne parce qu'il est un, un, candidat en vue de l'élection, des élections, euh, élections législatives prochaines. Donc nous regrettons tout ce qui s'est passé. Nous regrettons aujourd'hui encore plus que jamais qu'on puisse, euh, euh, disons, arrêter une personne qui n'a absolument rien fait, qui avait juste sollicité euh, de, de, pouvoir passer, aller à Bakel et faire en sorte que les, les, les, les deniers qui ont été, euh, les vivres qui ont été euh, achetés puissent être acheminés. Donc nous, nous pensons fortement qu'aujourd'hui c'est une injustice qui est in, in, impensable dans un pays démocratique, ce que nous condamnons fortement. je ne comprends pas trop ce dispositif policier. Mais bon, c'est un dispositif policier que nous respectons. Euh, mais ce que je dis très clairement, c'est que euh, vous avez tous vu ce qui s'est passé en termes de menaces. Vous avez tous passé, vu ce qui s'est passé en termes, euh, euh, de comportement. Vous avez vu que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 qu'il rentrera avec nous. voilà waaw dañ fi ñëw tey pour euh, euh, assister taxaw suñu xarit suñu frère di Bougane Gueye Dany nga xamante ne ne dañ ko téye fii injustement ñu ne moom ñoo àndoon Bakel ñu téye ko ci gendarmerie bi indi ko ci maison d'arrêt bu Tambacounda tey ñu war ko juger jugement bi nag nga xamante ne moom la ñuy def yaakaaroon ni liñ ciy egg dañu yaakaaroon ne euh, nit kuy dem di jébbal ndimbal ay mbokkam. waruñu rek lu dul xalal ko yoon mais ce n'est pas le cas donc ce qu'on voit aujourd'hui mooy téye nañ ko gendarmerie téye nañ ko euh, fii ci magu euh, Tambacounda euh, tardel ko si liggéeyam tardel ko si campagne électorale bi nga xamante ne ne moom la waroon def ak ñun muy sàmm sa kàddu may fàttali nag ne tey soo leen gisee dispositif bi am yépp c'est parce que évidemment même ñi nga xamante ne ne bëgguñu nit ñi ñu nekk def campagne jëf nañu ay menaces jëmale ko sàmm sa kàddu am na sañu fi fanaan si dégg na ginnaaw ba ñu lakkee seen suñu permanence euh, ginnaaw bien entendu bu ñu defee ay menaces jëmale ko si ñun. mais li am solo mooy dañ gëm ne ne démocratie ñoom fu ñu ko fekkoon waruñu ko fa waruñu ko fa dindi dañ ko war a yokku te tey luy yokkal démocratie mooy ñu bàyyi yi ñuy def te ñu fexe ba sénégalais yi nga xamante ne dañu am euh, ce devoir d'aller vers les populations sénégalais yooyu ñu bàyyi la ñu dem si population élection yi def seen élection nu mu waree te jàpp naan loolu mooy démocratie loolu la ñuy xaar si ñoom. jërëjëf jërëjëf. ayca mu ngoog ay kàddu yu bawoo ci Thierno bokkum gis nañu leen ah dafa mel ni daal lay sofal lay seen na leen ah, euh, moom wax ñoom Thierno Bocoum seen délégation moom directrice de campagne bu euh, sàmm sa euh, ah, seen coalition bi. bari ngeen lool ku ci mel ni casquette tamit moom laa mel ni moom laay seen ni ak casquette casquette bi ah bu Tambacounda parce que démb mooy wax woote téléphone ni démb du Kassé moom ak la dugg ci gi ministre Sidi Kaba dem nañ seet ji ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum wax lu am solo euh, lu ñu doon dund démb ñu tàmbali ko dundaat tey mais fii dafa gën a pire ndax dañu def euh, ci euh, dans la provocation ndax procès Bougane la mais mu jaral ay yenn ci waa Pastef ñu dem fanaan yi foofu uniquement pour la provocation ni ko Thierno Bocoum dénoncé. comme ku mel ni Bilal xam nga doon na tëkku naan ay Barthélémy Dias ba ñu daje Tambacounda ak yooyu xeetu wax yooyu waaye dafa mel ni loolu lañ def mais bu ko def bu ñu fa mënti def rek xool gis nga. luy tooy luy tooy. si ñoom lay jugee. dégg mm. lu waaye luñ ci góobee dañ ko gar kooku moom amul benn problème. Mm-hmm. parce que xam nga moom laa doon wax sànq. Mambey ñii dañoo nax Sénégalais yi li andi événement yi fi amoon du dëgg Ousmane Sonko citoyen la bu ko yoon wooyee dafa war a wuyu ji ku nekk nag boobu am na ko jàngatee. naan mm-hmm. complot wax lépp ba ba mu des wax ji. xam nga dafa am ancien ministre français de l'intérieur Charles Pasqua bu ko doon wax mu ne quand on euh, dans l'affaire jusqu'à ce que plus l'affaire mooy li taxoon ñu convoqué ko mu woote mortal combat après ku nekk dugal ci lu nekk ñu dugal ci troisième mandat dugal ci accusé ay général Fall accusé ci ku nekk li moo andi itam coow ay nit ne kenn du fi am jàmm génn dëkk bi di taal magasin jàmbur yi mhm. jël ay cocktail molotov di fi taal ñoo xam ne seen yoon nekku ci nañu wax dëgg ay waay yàlla dëgg la bëgg nag loo xam nit ñi duñu wax dëgg mamba yi il faut ñu wax dëgg loolu andi takk der yi génn après ñu dem nag ba régler situation bi xam nga damay dégg ñaan ñoom doole ñoo leen fal cëppi cëppi bi ñuy def nii ak balbal waru leen parce que bu ñu wax dañuy mel ni Che Guevara wala Fidel Castro koo xam ne daal dafa def révolution dugg ci palais génn président bu fa nekkoon toog quoi xam nga ak amul adhésion populaire boobu Sénégalais xool jàmm la ñu bëgg dégg nga jàmm la ñu bëgg ñu bëri leen doon woo fekkuñu leen ci am na nag ay trois plaies un tondu yoo xam ne dugg nañ ci après gis nañ conséquences yi lii bokkut lii comme loolu ay sos la ay manipulation pensée unique la woon mooy su ma nee weex na da nga naan tàll su ma nee ñuul na da nga naan kukk su ma nee su ma nee dégg su ma nee xonk na nga ne cuur. Mm. la ñu andi. mooy populisme mooy pensée unique. Mm. li may wax même mais xoolal Mambay ñoom. bi ñu faloo ba tey ñaata wax la bi ñu duggee ci politique ba tey ñaata yoon lañ la wax mu dañ ku la ne woon Pastef dina dem ba nekk parti bu ëpp lu ay transi lu muy accueillir ay transhumants ci histoire loolu est-ce que nga ko gëm yow. Mm-hmm. parce que ni ñuy attiré tey transhumant yi rek ni mu jégee dayoo lii Macky Sall sañu ko xool bu baax li ma wax Mambay fàttaliwul yow fii dala fekk nawet daa fii dala fekk nga xam adresse yi yi seen Macky Sall ay transhumant mm-hmm. Mm-hmm. sax mais ñuy falu rek ci semaine si njëkk rek transhumance bi commencé tàkkarnaase nga xam ne wax ji du woon dëgg kon ah, ah comprendre léegi nag comme li ñuy wax du dëgg ñu ne kenn kenn kenn du wax ne li ñuy wax ñoom du dëgg nit ñi bu ngeen waxee lu dul dëgg dinañ ko weddi ba sàmb di ca demb te mënu leen ci dara ba dara booloog jeex li mooy wax ji loolu mooy wax li mooy wax ji fii Sénégal problème bi léegi nag mooy li ngay gis ni xeetu xupp la pour nit ñi bu ñu wax boo waxuma la bëggaan mais ku dul bugaan juróom-ñaari fukk bugaan dinañ wax bu soobee yàlla parce que Sénégal kenn moomu ko ñun ñëpp ñu ñoo ko bokk. alors ni tubaab bi di wax le rappel profite aux croyants nga xam ne ñoom ñoo ñuy teewlu ci Zik FM biir réew mi wala biti réew mi c'est Sen TV l'officiel également euh, ki ñuy atte tey jii moo di Bougane Gueye Dany la la doon def social alors bi ñuy revenir un peu euh, ci dimension sociale bi nga xam ne nit ki moom la moom la amee euh, tey jii yàgg nañu gis benn Bougane Gueye Dany du gulet mu dem fekk ji nga xam ne ñoo nekk ci mbënd di alaaji paate du ñu ko weddi ndax Bougane Gueye Dany dem na fa yóbbu fa ay moto pompe euh, bi ñu ko yittewoowee mais également yóbbu fa euh, euh, carburant ay eau de javel daal di leen koy jàppale ñu tey jii dañoo taxaw ne Bougane Gueye Dany kenn waru ko yóbbu tribunal ba di ko àtte ndax la mu doon def foofu moom la bëggoon def ñoom bi dañoo porté combat bi waa buun bi ñu nekkee ci ay jafe-jafe wax nañu ko gis nañ vidéo bi mbënd mi sonal leen lool gisuñu kenn moom Bougane Gueye Dany yóbbu ay fa ay eau de javel ngir jàppale ko euh, askan wi Touba moo si mujj euh, ba tey ci social bi nga xam ne mu ngi koy def ba leen euh, mbënd mi sonalee euh, xalif bi wootee génn xaalisam def ci moom it mu jël enveloppe am daal di yóbbu ba tey ci social bi ak jige askan wi séddoo ñoom seen coono bugaan ngay dani ba gaal ga suuxee ca Kayaar fanweer ak lu ko ëpp ci ay doomu di ay ndaw faatu ci dafa dem ku si nekk mu dem fa toog ak say waajur waxtaan ak ñoom delloo si leen ci li nga xam ne daanaka moom mooy dund gi Maria merci Fabrice Ngema ndax moom moo tax sax ma xam lan mooy xosantu ak fan mooy xosantu gis nañ liggéey bi nga xam ne def na ko mu def ay village yu nga xam ne nii dañu amoon ay jafe-jafe ci wàllum ndox mu jàppale leen ci forage yi mais également daara yi mosquée yi euh, euh, ba ci ay euh, dama ko doon tooñaa ah. Euh, fi nga xam ne mooy ay morgo tabax na ba tabax ay morgo yoo xam ne mën nañ si denc ay euh, néew abri provisoire yi ñu ngi koy wax les Rohingyas loolu moom day demoon ba tur wi ñu jox ko ko hmm. ndax euh, koppar bi mu si dajalee jébbal ko ay jullit seen action la jiite loolu def naa 2019 la wala après ci inondation yi fa yi fa amoon tey jii Simon social boobu rek nga xam ne def nañ ko du guleet nag Euh, moom kon ñi nga xam ne ñoo ñu teelu foog ñu fàttali leen ko xamal ne. social boobee yëfam la rien à ak politique wala chef d'entreprise bi mu doon bu dul lool sax des médias gi ñu nekk ci social la ñuy dox. Euh, ci euh, social la Bougane gee dañuy yàgg yàgg di dox parce que yaa ngi fàttaliku inondation